asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki internetu Khidma 28 kon ñi ñëw ci xaaju ñaareel bi ci Cheikh Amadou Fadal loo di jaare sëñ Cheikh mi nga xam ne moom moo fi wuutu baayam di xalifaam ci kër gi ñuy ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér njaboot gi yëpp rek di siyaare mag yi murid yi nga xam ne ñoo fekkee jotaay bi ak njaboot gi yëpp rek ci soxna yi ak ci góor yàlla yi Cheikh Amadou euh, laaju ñaareel bi mooy sëñ Mor sax xalaaxa bi doxoon ci digganteem ak mag ñi buñ ko tuddee nag ku mel ne sëñ Daam Abdourahmane loo tudd ci ku mel ne borom daaru Maam Cerno dana am xel fu mu fu mu dem sëñ mag bi dadaa def ni yonent bi alayhi salaam daan def al ashra al mubashara bil janna am na ñoo xam ne sax daana leen wax ne leen fonkante leen ndax seen kër yi àjjana yi ñooy sosoloo mhm. kon xalaaxa bi doxoon ci diggante maam Cerno ak sëñ Daam ak sëñ Moraw sa mag yi murit yooyu ne ay fuguraas lañ a indil lool loolu mën naa yaatu wax dëgg yàlla mhm. sëñ Moraw Solo mboolem ñi toppoon sëriñ Touba mhm. muy ñooñu nga maam Cerno wala sëñ Daam Abdourahmane Lo wala maam Cheikh Rafal wala ñeneen ñi ci kenn ku nekk seqoon naa ak ñoom kóllëre goo xamante ni ci biir daara Serigne Touba ji boo ko dee xool danga naan bëriwul seex bu ko seq ak morom ja ba tax na tubarkàlla sëriñ bi itam loolu nga wax daana ko def boole ay nit diw ak diw ni ko yonent bi daan defee moom it na ko asaratul mbasara ñoo bi def na ko mm-hmm. tubarkàlla waaye ñoom ñooñu nag da leen cee gënoon lëkkale ñoom mm-hmm. ndax maam Thierno sëñ Morab Sa Lo sëñ daam Abdourahman Lo mm-hmm. ñoom ñooy ñi nga xam ne moom la sëriñ Touba woon ba ñëw mm-hmm. mu bind jamaa jamaa bii firi boole ni leen yéen yéen bokk lépp yéen a lépp daan ne jiim gi mooy Thierno miim gi mooy Mamar ayim gi mooy sëñ daam Abdourahman daan ne leen yéen ñii de yéen a bokk benn tool bokk benn jëwrin yéen a fiy jógee ndoo dem bar sàq te yéen dend kër ci àjjana oh. noonu la lu ko sëriñ bi waxee woon waaye nag da ca yëmut mm-hmm. ndax dafa joxoñ maam ceerno ne ko ceerno mm-hmm. mu ne ko mbàkke mu ne ko buñ ca egg yow yaay jiitu oh. joxoñ sëñ Mor Solo ne ko mamar mu ne ko mbàkke mu ne ko yow mi nga topp ci joxoñ sëñ daam Abdourahmane ne ko sëñ daam mu ne ko mbàkke mu ne ko yow mi nga topp ci oh. loolu nag di kiimtaan goo xam ne gu rëy rëy la ci sëriñ bi ndax kenn nattablewul ne hmm. almawt moom bu jotee malakul mawti mooy jël si agro kenn nattablewul ne buy dikk ndigal suñ borom lay dikkee hmm. kenn nattablewul ne moom suñ borom lay déglu te lu mu ko digal loola lay def waaye nag sëriñ Tuubaa moom ni mu ñoom dafa mel ne ñii ñooy dem ci seen coobare oh. dafa mel ne ñii ñooy dem ci seen coobare ak nu ma leen neexe te nooy organiser wit ni ñuy demee te kenn ku ne am nga kattanu ci li la sëriñ Tuubaa sant nga def ko sëñ Mor Absa Lo mënut a jiitu sëriñ sëñ mhm. sëñ Daam Abdourahmane mënut a jiitu sëñ Mor Absa mhm. na leen ko sëriñ Tuubaa sant woon it ba mu egsee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp ci weeru barax lu wi may wax ak yow ci lañ dem oh. maam Thierno ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru baraxlu di bisub alxemes ci la dem alxemes ajjuma gaaw di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu ci la sëñ Morab Suloo dem dimaas altine talaata di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru baraxlu ci la lan sëñ Ndaam Abdourahman dem hmm. kon na leen ko sëriñ tubaa sante woon rek noonu lañ ko defee te am nañ ca kattana ko sañ sam ku mat gu mat sëkk sëñ Morab Suloo sax loolu sëriñ tubaa santaane ne kii na jiitu ki topp ci kii topp ngir mu wanee ne nun linu nu sëñ Tuubaa sant mën nañ ko wallaahi te sañ nañ ko uh-huh. moom sëñ maam Ceerno kii la dem alxames uh-huh. àllarba ji sëñ Mor Solo daa demoon barsàq moom ci xisa bu leer naññ bu wér boo xamante ne xëy na du fi xaj waaye bu leer naññ la uh-huh. bi mu demee bañ defar ko lañ koy defal ku fi jógee ba noppi ba waxtaane gannaawam war koo yóbbu Tuubaa war koo rob fii tam dénkaane woon na nañ ma yóbbu Tuubaa ba sëñ Madu mi nga xamante ni moo ko jëkk a wut di xalifaam mm. woo ay rakam yépp ñu bokk toog bañ waxtaane ko ba noppi ba war a juboo ci war koo denc fi bañ ko yóbbu Tuubaa ci la yënguwaat bañ xam ne kii ku yëngu la bi sëñ Madu dikkee yër ko mu ne ko kooku mu ne ko Madu mu ne ko waaw mu ne ah, sama baay damaa def noon yow da dem sax mu ne ko waa ah, demoon naa de oh. waaye nag damaa dellu si dellu si gii dafa am sabab ndax damaa yàkkamti rek waaye sëriñ Touba dane woon na Ceerno jiitu nga topp ci te ceer na dem naa barsàq fekkuma ko fa. Hmm. beneen bi ci des mooy da dama ne woon na ngeen ma yóbbu Touba te yéen ngeen di naatable rek mu fii ñaar yooyu rek moo ma delloosi kon sëñ bi dafa wane rek ne dem barsàq dellu si moom tubaarkàlla sëriñ bi defal na loo xam ne tax na luñ ci bëgg mën nañ koo def. waaw ba tax ne li nu sëriñ Tuubaa sant daan ko def ni mu ko waxee te man nañ ko te am nañ ci kàttan sañ nañ ko. wallaahi waaw ba noonu lañ ko nii moom lañ ko defee kon ñett ñooñu mu loolu moo doxoon seen diggante. Mhm. waaw tubaarkàlla boobu <laughs> beneen laaj. moom de xam naa ne borom barak bi moom moo dul kenn rek ñun daal ki nu am. ki nu am mooy sëñ Tuubaa rek xaadallahu llahu maxtaaralhu waa koy léegi Cheikh Amadou Fadal xam naa minal xaqi moom li nga ci leeral sànq moom day day naan gu yokk mar moo tax xam naa sax danga am son ba mu ci yónnee waaye man may laaj ngay ngay ngay tontu ci minal xaqi dama ci dul doyal waaw loolu xam naa nga dikkal ñu ci diggante sëñ Mor Asta daal ak minal xaqi loolu nga am noonu ci tënkal rek ndax jotaay bi mi ngi bëgg a euh, ah, waaye daal sëñ Tuubaa mel noonu. waaw minal xaqi comme noonu wax comme son danañ la ko yónnee. Hmm. bu defee nga sélectionné ko ci liñ doon wax. Hmm. waaye liñ ciy tënk mooy hmm. euh, minal xaqi daal bi mi ngi ko bind kon ci gàttal. gannaaw bi mu ñibbisee ci géej gi ñibbisi ci jéeri ji. Mm. Eh, mi ngi ko bindee itam jolof. Mm. dëkk bu wax Daaru Rahman. Mm. mi ko bindee itam ci weeru rakkaat ji gàmm bi mu ko bindee eh, ko booleeg sëñ Mor ba mu ko bindee ba noppi. yor ko ci loxoom. maam Thierno Ibra Faty la woo ba mu ñëw. mu ne ko Thierno. mu ne ko Mbàkke fekk mu ngi yor keet bi nii. mu ne ko xanaa xam nga tukki boo ma gis rek am na sëri te tukki bu ma mës a tukki mhm. wii moo di sëri caam mhm. képp ku ci teg sa bët bii jot nga sab sëri tukki bu mu mës a tukki mhm. ku ci tegal sa bët bii kay moo jot gu ab sëri waaye ku ci teg sa bët moom jot jot nga sab sëri ca ne ko Ceerno xaa xamoo ne jubóo na ma ak saa borom ci Kédougou wii day minif mu ci teg bët texe nga te dootoo texee di defar nga te yàqu ah, loolu mi ngi amee woon jolof léegi loole nag ba mu amee sëriñ bi ci boppam moo wax maam Ceerno ne wool ma mbooloo mi na fi si tisbaar mm-hmm. dama leen a soxla mm-hmm. bi ñëpp dikkee ba daje bañ julli si tisbaar ba noppi mm-hmm. sëriñ bi laaj ko mu ne ko ñëpp ñëw na mu ne waaw daa am lu ma leen di dooyee de li ma leen di dooyee itam mooy kéet wii laa bëgg am fulla am fayda am kàttan mën a jàkkaarloog mbooloo mi wan leen ko ba ñëpp teg ci seen bët mu delloo si ko bu ci dara sikk maam Ceer ne ko loolu de moor ab mi mën na ko mu ko ak saan mamar kon topp si Mor ñëw mu ko Mamar mbooloo mii nga seen ci penc mi kër bi moo ma woo leen fi damaa jubóog ci ne ci teg sa bët texe nga tuddoo texe di defar nga tuddutoo yàqu. Mhm. ah tukki ma sa tukki it bi moo di sëri caam mhm. ma bëgg nag ñoom ñëpp nga wan leen ko bañ teg ci seen bët bu ci dara sikk te nag ma ko dellu si waatal fii. Mhm. sëñ Mor Absolu nag ko yéene. jóg nag soobu liggéey boobu ko Serigne Touba sant di seet nu mu koy defee ci gën gaa sell bali ko Serigne Touba sant mu def ko. tey kër yi dara du ci mu dellu sil ko sëñ bi na mu ko bëgge mm. ci loolu la sàkke juróom-ñetti mag yoo xam ne ñu am kàttan lañ yebal leen ci biir mbooloo moomee sëriñ tubaa woowoon ci penc ma xamal leen lii ko sëriñ tubaa xamal ci kër yi wax leen ko mm. ne ne ko saa bu ma yëkkatee kër bi rek yen ñëpp na ngeen maas ci yëkkati seen baat xamal mbooloo mi ne leen kër wi la leen sëriñ bi dooye mm-hmm. sëriñ bi nee na ku ci teg sa bët bi tukki bu ma sa tukki jot nga ci sa sëb sëriñ ca mm-hmm. kër mm. bi moo ku ci teg bët texe nga tuddutoo texee di defar nga tuddutoo yàqu mhm. loolu nag di lu doy kiimaan mhm. ndax eh, li ma li ma kii woon mooy sëriñ tubaa moom texe diggée na ko fu ne nag mhm. jëkk koo diggee ci kër woowu de jëkk koo diggee bi muy dem ci géej gi ba mu doon na ko diggee waaye nag dafa wuute wuute googe nag lu mat ràññi la ndax Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke bi mu ganee jamono ci nettali sëriñ nekk njëreem mu nekk ndaam ba mu ca yebal maam Thierno ne ko demal ganale ko. Hmm. dana kon fii nga fiy jóge dem ba bay dellu siwaat képp koo fi dajal suñu borom jéggal na ko ci barkeb gan googu nga xam moo ñëw. Oh. waaye loola nag. Hmm. ña fekke jamono jooja. Hmm. te dajeeg maam Thierno. ñooña dong lay seenub cër. waaw sëriñ Abdou Khadir Mbacke. sëtam yi mas nañ na ko maam dañoo dégg ne ku la koo jiite mu texe. sëñ bi ne leen ak ku ma gis. Mm-hmm. ak ku ma gis. Mm-hmm. waaye loole nag ña ko gis te moom jamono. Mm-hmm. foofa la mbaa mu jiite leen. waaw mbaa mu jiite leen. Uh-huh. ñooñu lay seen wërsëg. ñoom ñoo ci yem. ah sëñ Saaw. kenn la ci ñaandoon sëriñ Touba. bi mu fi bàyyi ko muy guddi sëriñ bi dana fanaan leen ko ba suba da ngeen defar jaat gi te teg na le képp ku ci bëtam dal texe nga. waaye nag ña fanaan. te loola fekk leen texe yi sëriñ Touba doon dig nit ñëpp noonu la demee woon. texe gii nag moom dafa xaw a wuute. ndax gii texe goo gis ak texe di mën naa nekk ci gannaaw. waaw defaru goo gis. Mm. ak yàqu mën naa nekk ci gannaaw. Mm-hmm. waaye gi sëriñ bi da koo garanti. Mm-hmm. dafa wane ne képp koo xamante ni kër wi nga teg ca bët te texe moo la tax a texe. Mm-hmm. Iblis mënut laa yàq. mënatoo yàq sa bopp nag. alhamdulilah ndax ak defaru yàqu nekkul ci gannaaw la wax. Mm-hmm. ak texee deet nekkul ci gannaaw la wax. Mm-hmm. Ah, kon loolu moom bu mm-hmm. xasee am. mooy li ñuy wax garantie. garantie garantie boo xamante ni Serigne Touba ko garanteel boppam. nga xam ne Cheikh Amadou Fadal texe yu njëkk yi moom daa boole zarfu zaman ak zarfu makan. waaw nga xam ne barab bi ak waxtu yu ko seen digle rek bu jàllee jàll na bu jàllee jàll na. Uh-huh. am na fu mu tàmbalee. Mm. waaye am na fu muy jeexee. Mm. kii nag. li tax mu doon wax sëñ Mor Absa sàmmal kéet wi mm-hmm. feek kéet ñu di ko sàmm mm-hmm. la ci sëriñ Tuubaa digge woon nekk ci mm-hmm. képp ku ci teg sa bët bii am nga loola sëriñ bi digge woon waaw ah. <laughs> alhamdulilah alhamdulilah kon de waaw kon de euh, baa ngi soññee waaye naa kon de ñi ngi ñaan rek ñu ngi yalwaan kon ñun ci barkeb jotaay bi mm. ak darajee Cheikh Mouhamadoul Mountakha euh, sëñ moom daa xam jikkoy journaliste moo tax waaye ñi ngi yalwaan rek kon euh, sàmm googu sëñ Tuubaa waxoon bar barkeb làmmiñu sëriñ bi alhamdulilah waaw kay alhamdulilah alhamdulilah kon xanaa liñ ci yalwaanaat sëñ Tuubaa rek mooy comme jamono bu ñu koy waxtaanee moom mi ngi teew mm-hmm. ñu ngi koy yalwaan rek eh, sàmm googu yàlla bu mu génn askanu loo ci ñu ba ba keroog bisub taxawaay ba rek waaw loolu moom sañ nañ koo ñaan li ñuy xeebu xeebu ndax eh, liñ ñu fi defal eh, danoo jomb mm-hmm. waaw nit yor nay milliards gaare yi oto te mënta fexe ba ba am jotaay bi tey mm-hmm. jotaay bi nag ñun am giñ ko am ñi ngi koy yéene murit yëpp di ñaan murit bu dégg suñu kàddu ci micro Khidma 28 yàlla na suñu borom borom tàggat sa jëmm mm-hmm. ba nga am tew feexe teew fii mm-hmm. bañ wan la lii ñuy wan lii ñu fi wan tey mm-hmm. waaw ñi ñi ngi ciy ñaanal laale suñu kilifa docteur Balla Mbacké Mbuub di ñaan suñu borom mu ne rek day liggéeyal sëñ Tuubaa te kook ñun ñu ngi sàkku ci yéneen eh, ngeen ñaanal ñu ci barkeb sëñ Mor Absolo mu dem ba doonub télévision doonub rajo te murid yëpp di ko jëriñoo ndax am nañ ci ndigalu sëñ Muntaxa taxawal kon sëñ nga def kàddu yu mujj rek bu ko defee sëriñ bi ñaan ñu yëkkati jotaay bi. waaw kon na xanaa nuyu bokki tali bi rek. fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. Mm-hmm. ko ak jigéen mag ak ndaw. Mm-hmm. nit ku weex ku ñuul nit ak ginne. Mm-hmm. kon mel na ne bàyyiwun kenn. <coughs> xam nga li ko fendi moo doon siyaare si minal àq bii. minal àq bii eh, sëriñ Touba def ko. dafa am lu mu ci jublu rek. li ci jublu mooy dimbali jaam ñëpp. bañ kenn rek dem safara bañ kenn texee di ñëpp maase texe ndax yombal na ko lool nag mhm. yombal gi mooy mhm. mag ñi daje woon sëriñ Touba mhm. ñëpp lañ doon wut ci sëriñ Touba loola lañu sëriñ bi defal ci téere bi ndax texe rek lañ bëggoon te sëriñ bi bi xidmatin aw bi xubbi aw adiyaati la waxoon ñett yi da nga ciy def lenn bii nag sart bi bokk ma bokk ci mm. xobb mm. euh, hadiya mm. gis ak bët la wax gis ak bët nag yomb na gis ak bët yomb na kon képp ku ci sa wërsëg nekk yéene nañ la ko képp ku fi ñëw boo di kayitam bu soobee yàlla incha allah muy góor muy jigéen da nga ci teg sa bët ndem soob na yàlla benn charte rek moo ci nekk bu mat a leeral mooy mbir mi kenn du ko siyaare guddi fépp waaye man di nekk daal bu six heures jot la fa mm. xamal ne moom ëllëgati bu ko yàlla dogalee ban ko sëriñ bi joxee léegi ba suñ joni tey jii mm. masee su ko siyaare guddi mm. ku koy na digg bëccëg te woote waaw boo dikkee da nga ko am ci jàppandi tey tubaarkàlla na nga ko bëggee woon mën naa am da nga ko ne amee kon alhamdulilahi rabbil alamin suñ noo ngi tàggu ñëpp tàggu ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawféex buñ sañoon waa adduna bépp gis ko loolu moo ci doon suñu yéene ndax sëriñ Tuubaa sëñ Moustapha mi nga xam ne moom dëkk woon fii moom li mu daan wax mooy su ma ci amoon ndigal fu man nekk ci adduna bi daa dem ba egg wax la ko leeral la ko soo nangoo ñëw ma ànd ak yow jàpp sa loxo ba ñëw wan la ko soo nanguwul ñëw damay xeex ak yow ba tënk la ëpp fodog la indi la wan la ko loolu la daan wax waaw kon nag mu ngoog alhamdulilah tabarakallah eh, liñ ci dolliwaat rek mooy ginnaaw balaa suñ bee ñaan mooy sant yàlla gi ñuy defaat mooy eh, lu amut ak lu amut ngistal mm-hmm. loo xam ne yàlla kese la ndax jotaay bi bu fekkonte ne mën nañ ko filmer ba ngeen gis ko mm-hmm. ñun de nattable wuñ ne ab télévision ba gënoon a mag bu fi ñëwoon eh, li ñu sëñ Cheikh may Cheikh Amadou may ñu ko jotaay bi du weesu nii ndax lii de bu doon àdduna képp a tax kon jotaay bi da ngeen ñuy boole genn gone rek fee ci biti mu wax ñu fa ñaari kàddu ñu dem waaye bàyyi yitte yëpp ñëw toog indi ko ku mënoon a filmer lii bañ gis ko nañ xam ne ñii li ñuy def yàlla képp a tax ñu di ko def ak wéyal ndigalu seen wajur loolu euh, du mbub mu foor du xaalis bu bari bu ñu leen di jox du dara ndax li ma siyaaree moom ruus naa ko tudd sax ci waxukaay gi waaw jotaay bii ñu ñu may nag day wane ne kon yàlla kese ngeen di defal yàlla na taxawaay bi gën a yàgg yàlla na wér gi gën a gën a gën a ànd ak moom yàlla na tawféex yi gën a ubbeeku ci daraje sëñ Tuubaa barkeb Cheikh Mouhamadul Muntaxa te yàgg koo ànd wasalaamaaleykum wa rahmatullahi kon ñu jox sëriñ bi mu def ñaan bismillah amin amin amin amin amin